waaw fii nag dañuy ñëwee ci daam daam taasoom naka la koy dikkee yow say taasu maanaam daam day jékki-jékki di bind wala daam dafay gént yeewu taasu lu muy taasu nan nu mu demee noonu nag naka la dikkee ci yow. maanaam xam nga kenn du yàlla moom mi la jox xel mi ngay xalaatee. Hmm. dañ koy sante yàlla rek. ndax nit mënul xamul sañut yàlla moo mën moo xam moo sañ. dëgg lu ko neex mu def ci nit ki. yaa ngi dégg. te kenn du ci mën dara. dëgg la wax naan yàlla jël ki ko neex. mu jox ko li ko neex kooku defar ba mu neex ba boo ko ñamee di nga ne waaye lee neex waay ku nangu lu yàlla nag doo sonn sa du jeex mais ki bañ li yàlla dogal di nga sonn sa xol di ngeer ñu yóbbu la pépinière solo loo togg mu daal di ngeer. a neex. looloo neex. neex xam bu ma nee original Dame Sène war a yegg sur scène ak yeneen feem ne woon naa leen samay rime dinaa ci am prime dama def benn crime ku miim laajal Abdou Karim liiru siiru ba doon xiiru ko ñoom Basiru maa rey ay baax sa wax dafa lax moo la tax rax ba doon naan soowu dax lu tax gi tax tax be tax waddal pi tax gu njax a tax mu ra tax dugg ci ndox naan paccax tax sax du jël keccax yóbbu ci paxu janax xol ba day baax ba du ko mën a keppi wiccax ndax yax lu may wax mel ni ko a gis dax lii dafa rax wala dama lay nax ak foog ma wax man may pa pamboole mooy magu ami kolle bi ñëwoon suma gàll di ma jaay doole ma jox ko xorom polle mun ma di nga cólle man ko yot mun naa ma yaa a xoole soo ma tooñ ma di boole koo koy pa moom père gis nga li nga def ma mère yaa ko dóor feer ba tax mu àgg moom père yaay seer mi nii gedd waaye ma mère déclaré guerre ma indi saako xeer koo romb na xaañ ba ci musa la te bul fàtte rosé la nga naan sa somnifère yeewu daa ñi seen naa la carrière ngay arrière mbëkk garab dem fourrière ku ci am caractère daa dem Angleterre pomme de terre fu du suuteer tet mbokk yi lii doy na waar euh, vraiment euh, daam lii jaaxal na ma man dama xamul ba xam nak nga koy toogee nii rek di ko kebetoo nii te bindoo ko euh, jàngoo ko nu lay dikkee loolu laa bëgg gën a xam nan la lay dikkee kenn du yàlla xam nga nga ne jaaxal hmm. lu jur du jaa lu ca la bu ñu tegoon fii xal di nga ko dëgg xal bu ñu ko tegoon fii di ko dëgg da nga ne jaaxal. jaaxal waaw bu ñu tegoon xal di ko dëgg. boo tëbee dëgg xal dese na beneen tëb. kenn du yàlla. bu la beneen tëb boo fa fekkee beneen xal xam. da nga tëbaat beneen tëb. di nga ñokk li ni biche. maa la wax lu mel ni. xam nga boo compliqué doo neexee expliqué. jëtkatu horaire foo ko fekk dafay tardé reer mais malade mental kenn du ko tegal instrumental. waaw te kenn du yàlla. <laughs> ay ci kon ah, kenn du yàlla du ñu def lu dul mbokk yi di ko di leen bëggee yéen ñëpp di jaajëfal ki nga xamante ni nag moom moo di ah, wulli wulli waat nekkee foofu ci diwaanu Sénégal di am contentement mbégte di bëggee képp koo xamante ni ah, yaa ngi suivre seen chaîne bu bees bi ñu gën koo xam ci wasaare musique ah di leen bëggee di leen safo di leen wax rek ni na bu leen ko bu leen ko ratee de leen bës cloche bi bu baax a baax a baax abone leen su ko defee ngeen mën a am yeneen artistes yi nga xamante ni ñu ngi fii ci réew mi ñu war leen dékk suñu micro waxtaan ak ñoom